من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقي yi seetaan وان أكيين في سورة البقرة ci آي baqara نينتفك tey وإذا قيل لهم lahum suñ leen waxelee aminu gëm leen aminu gëm leen bi ma ci la nga xam ne anzalallahu yàlla wàcce na ko mooy alquran xaalu ñu daldi tontu ne wax ne noominu dañuy gëm bi maa unzila la xam ne wàccee nañ ko aleyna ci ñun mooy tawreet loolu la ñuy gëm qaala taala yàlla nee na wa yakfuruuna ñu ngi weddi bi ma waraahu lépp lu dul tawréet ñu ngi koy weddi te wa huwa alquran alxaqu mooy dégg musaddiqan dégg koo xam ne mu ngi déggal sax lima ma ahum téere yu ànd ak ñoom mooy tawreet ak linjiil qul waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam nee leen fa lima taqtuluuna anbiya allahi lu waral ngeen di rey ay yonente min qablu jëkk yaa yaxya yéen yonent yàlla yaxya yéen a koy rey yonent yàlla zakariya yéen a ko rey lu tax ngeen di rey yonent yàlla yi min qablu jëkk in kuntum ndexem nekk ngeen muuminiina di way gëm <clears throat> yàlla ne wala qad jaakum laam bi muwataatun lil qasam xat bii xarfu taxqiqin la yàlla nee wala xat jaa akum wallaahi ci dëgg jaa akum dikkal na indil na leen muusa yonent yàlla muusa bil bayyinaati ci ci ay lay yu bir yàlla joxoon na ci kéemtaan kala asaa lu mel ni yet wa wal ak loxo bi nga xam ne su ko génnee dafay mel ni ay faar ci leeraay wa falaqal baxara xotti na géej lee yépp ay kéemtaanam su ma topp rek taxasum ngeen jàpp al ijla yëkku ngeen def ko yàlla waaw yàlla nee na Moussa nee na yàlla mooy ki nga xam ne moo ma yónni bind bind ma te yónni ma ngeen bàyyi ko fii tànn yëkk ngeen ne loolu mooy seen yàlla benn nag rek nag yooyu nag soo ko taxawle sooy wax ak moom du la tontu soo ko du wuyu nag du day nan rek moo tax mu ne suma ma ngeen jàpp al ijla yëkk wa ngeen def ko ilaahan yàlla ni min baadihi ginnaaw yàlla dégg nga min baadihi ginnaaw euh, rendez-vous bi nga xam ne mu yonent yàlla Moussa joxoon nañ ko rendez mu war a gisee ak yàlla wa antum yéen bi ngeen def loolu zaalimuuna way xam ngeen xam ngeen ni way tooñ ngeen yàlla ne wa id axas naa fàttaliku leen bi ma jàppee misaaqakum seen kóllëre ala amali bi maa fi tawréet ma wallërante ak yéen di ngeen jëfee lépp loo xam ne mu ngi ci tawréet wa rafaana yëkkati nañu fawqakum seen kaw ak doj ñu ne leen xusu jàppaleen ma aataynaakum li leen indil bi quwwatin ci kàttan wasma wu déggu leen déglu leen maa tuumaruuna lépp loo xam ne digal nañ leen bii ci loolu sima aqabulin sama aqabulin dégg woo xam ne pour euh, nangu déggug nangu xaalu ñu wax ne tontu samina ñun dee dégg nañu xawlak sa wax waaye wa asay naa mooy nañu am rakk sa ndigal wa usribu jaxasee nañu fi qulubihim ci seen xol yi al ijla jaamu yëkk bi kufrihim sabab seen kéefér rek bul waxal leen wax leen muhammad sallallahu alayhi wa nee leen bi sama bon na yaamurukum la li nga xam ne digal na leen bi ci loolu imaanukum seen ngëm bu dee seen ngëm lii la leen digal leen kon de digal na leen lu bon yi jaamu yëkk loolu de du du du digal bu baax in kuntum dem nekk ngeen muuminiin di way gëm qul waxal yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee leen in kaanat lakumu daarul axiratu inda allahi xaalisatan min duuni naasi fa tamannawul mawt su fekkee ne am ngeen kërug àjjana goo xam ne xaalisatan lu jagoo la particulièrement yéen rekk ko moom jullit yi bokkuñ ci Muhammad bokku ci sallallahu alayhi wa sallam jullit yi bokkuñ ci kon léegi xam nga nu ngeen di def koo xam ne sa kër aljanna pare na fatamannawul mawt loo fi wut loo fiy def bëgg leen dee ngeen dem noppalu ji aljanna neex na dem leen yàlla ne fatamannawul mawta in kuntum saadiqin bëgg leen dee waaye duñu bëgg dee muk mukk parce que xam nañu li ñuy wax du dëgg dégg wala an yatamannahu abadan duñu mëbët dee mukk duñu bëgg dee mukk ngir caay-caay gi ñuy def ci àddina caay-caay gi ñuy def ci kaw suuf ak weddi alquran weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak pexe boo xam ne képp kuy fexeel yonent bi di fexeel diine di fexeel jullit yi seen loxo mu ngi ci biir loolu moo tax duñu bëgg dee mukk xam nañ li ñuy fekki moo tax yàlla ne wala yatamannahu abadan du ñu namm du ñu bëgg duñu ñu mébét dee mukk bi ma qaddamat sabab bi nga xam ne jiital na ko aydihim seen loxo yi minal min kufri min kufrihim ci seen kéeféer bi nabi sallallahu alayhi wasallam weddi gi ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallahu yàlla aji alimun aji xam la bi zaalimine ci yéeféer yi fa yu jaasihim dina leen fay seen jëf wala tajidannahum wala tajidannahum di nga leen fekk sax aharasa naasi ñoom ñoo gën a xéer ci nit ñi ala xayaatin ci bëgg a dund ñoom ñi wax am nañu kër àllaaxira kër googu mooy àjjana soo demee sax ñoom ñoom ña gën a bëgg dund ci ñi nga xam ne amuñu kër ga kër foofu hmm. moo tax mu ne wala tajidannahum da nga leen wallaahi da nga leen fekk ahrasa naasi ñoo gën a xër ci nit ñi ala xayatin ci dund wa min allazina ñoo gën a xër ci gaa yi nga xam ne ashraku bokkaale nañu dégg nga yawaddu dina mébét ahaduhum kenn ci ñoom law yu amara alfa sanatin ak a neexoon ñu dundal leen junni kenn ku nekk ñoom ñi wax ne am nañu kër àjjana koo xam ne ñoom rek ñoom yahud yi ñoom ñoo ko jago jullit yi bokkuñ ci nasaara yi bokkuñ ci waaye nag koo fëgg dënnam di fekk moom moo gën a bëgg dund ak a neexoon sax yàlla bàyyi ko fi ci àddina alfa sanatin junni junniy at yàlla nee na wa maa huwa déet kooku di mébét ñu bàyyi fa junni at bi mu ñu koy soreel minal azabi ci mbugal doonte dundoon na ñaari junni at du tax yàlla soreel ko mbugal mu safar an yu amar alfa sanatin wallaahu yàlla basirun aji gis la bi maa ci li ñuy jëf dina leen ko fay bul waxal yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam man kaana képp koo xam ne aduwan aji aduwan noonu la li jibril ñeel jibril fa innahu jibril de nazalahu moom moo koy wàcce mooy wàcce alquran ala qalbika ci sa xol yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi isnillahi ci ndigal yàlla ñoom wax nañu ne fa qaala wasaala ibnu suuriya góor gu ñuy wax ibnu suuriya laaj na annabi sallallahu alayhi wa sallam wala umar ibnu xataab am man yaati bil waxyi kan moo leen di indi révélation kan moo leen koy indi ci yonent ci ci malaaka yi omar wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jibril moo ñu koy indi fa qaala mu ne moom ibnu suuriya ne huwa adubun la adubuna kooku suñu noonu la parce que yaati bil azab moom mbugal rek la indi walaw kan mikail la amanna su fekkee mikail malaka biñu wax mikail mo don indi révélation yi kon dinañ ko gëm li annahu yaati bil khasab mom ay ay ay ay ay ay natange rek lay indi wasalaam ak jam fa nazal ay bi wàcc nak yàlla ne qul waxal ya muhammad salaa sallam lahum neel leen ñoo ñi nga xamne dañuy laaj kan moy wacce wahyu qul waxal qul waxal lahum ñeel leen man kaana képp koo xam ne aduwan noonu na li jibril ñi ñeel jibril fa innahu jibril de nazalahu mooy wàcce alquran neex na qadi ala qalbika ci sa xol bi iznillaahi waaye da koy wàccee ci ndigal yel ndigalal yàlla musaddiqan alquran ji nekk na di déggal li ma bayna yadayya lima bayna yadayhi li nekk ci kanamam min alkutubi ci téere tawrit ak linjil ak yeneen téere wa hudan njubla wa busra mbégte la bil janna ci àjjann waaye ñeel na lil muminina julliti man képp koo xam ne kaana nekk na adduwan di noon lillahi ñeel yàlla wa malaikatihi mu noonu malaayka yi wa rusulihi mu noonu yonent yàlla yépp وجبريل منون جبريل وميكائيل اك ميكائيل فان الله يلا يتم ادو عدو نون لا للكافرين نيل يفري يلا نه ولقد انزلنا واتينا اليك تي يوم محمد صلى الله عليه وسلم ايات اي ايه بينات يبر يلير ردا رد لي de ngir delloo li qawli ibnu suuriya li nabi sallallahu alayhi wa sallam maa jiitanaa bi cheyin dégg wa maa yakfuru du weddi bihaa ci aaya yi illaa ndé ndéree alfaasiquuna way génn topp yi aw kullama ahadu walla jamono joo xam ne kóllërente nañu ahadan kóllëre alal imaani ci gëm bi nabi sallallahu alayhi wa in xaraja awin nabi sallallahu alayhi yonent bi sallallahu alayhi génn su génnee nañu ànd ak moom ñu dimbali ko dégg ñu bàyyi bokkaat daal di ko sànni nag fariqun kuréel minhum ci ñoom balli fi ne aksaruhum lu gën a bare ci ñoom laa yuminuuna gëmuñu wala ma jaahum bi nga xamee ne dikkal na leen rasulun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min indillahi ci yàlla mu musaddiqun mu nekk aji déggal li ci li nga xam ne ma ahum ànd na ak ñoom nabasa daal di sànni fariqun kuréel min allazina ci gaa yi nga xam ne uutul kitaabu jox jox nañ leen téere kitaaballah ñu sànni téere bi yàlla bi mooy tawreet waraa zuhurihim seen ginnaaw ginnaaw yi ka annahum ñoom laa ya'lamuuna mel ne musuñu xam maa fiha li nekk ci tawreet wa taquuna ngeen ragal wa taba'u topp nañu maa ci la nga xam ne tatulu jàng na ko ashayaatin shaytaan yi ala mulki suleymaan ci jamono suleymaan ci nguur suleymaan wa tabawu topp nañu maa tatulu loo xam ne jàngoon na ko ashayaatin shaytaan yi ala mulki suleymaan ci nguuru suleymaan jamono nguuru suleymaan te wamaa kafara suleymaanu suleymaan de weddiwul woon walakin li lifine ashayaatin sheytaan yi kafaru ñoom ñoo weddi yu allimuuna annaasa ñuy xamal nit ñi njibar wa ak lépp loo xam ne unzila wàccee nañ ko ala malak alal malakayni ci ñaari malaaka yi bi baabila dëkk bi ñuy wax baabila baladun fi sawaadil iraq haaruuta wa maaruuta loolu la malaaka yi tuddoon dégg qaala ibnu abbas huma saaxiraan ibnu abbas nee na ñoom nekkuñu woon ay malaaka waaye ñaari njibarkat lañu woon rek kaanaa nekkoon nañu yaalamaani ñuy xamle a sihra mbile e, njibar wa wax nañ ni am na ñuy wax ne malakaani ñoom malaaka lañu woon anzala wàcce woon na li taalimihi dégg nga ngir xamal leen ko ibtilaan ngir nattu min bu tukkee ci yàlla naas ñeel وما يؤلمان خمالوني من أحد من بزائد لا من أحد تكن حتى يقولا مبتة وقت مدرة وقت نيو كني جانغال إنما نحن كت فتنة نيون نطلا نيو كون واي بول جانغ بول جانغ لين لا جانغال بول جانغ نيبار نخلي باخل أمول كن كو خامنة جانغال نيو لودول wax nañ le li ñuy jàngale baaxul waay soo jëlee décision jàng nag ñu soog la ko jàngal falaa fur bul weddi ñun weddi ak mooy yàlla moo tax yàlla nattuñu fa yataallamuuna nit ñi ñu ngi jàng minhuma ci ñoom tukkee ci ñoom maa yu farriquuna lépp loo xam ne dina teqale bi ci moom baynal mar i diggante nit wa zawjihi ak àndaaleem ndey ak doom jëkkër ak jabar kaza kaza wa hum déet ñoom bi riina ñi mën a lore bi ci mbir njibar gi min ahadin ci kenn illaa bi isnillahi ndare ci ndigalal yàlla amul kenn koo xam ne mën na lor moroomu jaamam lu dul ci ndigal yàlla mënoo ko feebar la mënoo ko jox feebar mënoo ko wéral mënoo ko dundal mënoo ko rey mënoo ko xañ wërsëg mënoo ko mënuloo ko dara dara dara lu dul yàlla da cee ànd moo tax ñu ñu wax ne qul lan yusibanaa illa ma kataballahu lana dara du ñu jox du ñu jot lu dul loo xam ne borom bi subaanu wa moo ko dogal ci ñun lu yàlla dogalul ci jaam li du lool du am waaw moo tax Serigne Cheikh radiyallahu anhu dafa doon wax ne suñ la wax ne diw sa noon la nga nangu ko da ko bëgg a nangu rek waaye noon dafay mot noon moo noon balaa muy not mot noon dafay fekk mu mënal la dara wala mu mun la xañ dara wala mu mun la may dara yoo koo xam ne mënul mënalu la dara suñ la waxee sa noon la danga bëgg noon rek waaw waaye kooku du noon noonu da koy mot moo tax suñ ko waxoon diw de laa contre mu ne moom kañ kañ la ñibbisi sax kañ la ñibbisi ñu ne waaw kooku dafa tukki won ko kay mu ngi fi ah dama yakkar ne tukki sax ça veut dire que yëguma ko waaw ah, yëguma ah, nit moy bëgg am non rek nga am non li ci dess nak kulo loo te mënulu la dal du la teree lekk du la teree naan bu du la teree solu bu la teree waxtaan bu la teree doxi say soxla bu la teree solu bu la teree am bu la teree feebar du la tax wér mënalu la dara kon kooku su su suñu leexee ne sa noon la de yaa bëgg noonu rek yaa bëgg noonu rek wala gëmoo yàlla tiit wala mu tëkku la nga tiit ku mënalul boppam dara dana la mënal dara waaw moo tax nag njibar yi mënulu nit ñi dara moo tax mu ne wamaahum déet ñoom bi daa réen ñuy lere bi ci njibar gi min aadin ci kenn illa bi iznillahi wa yataallamuun nit ñi nag ñu ngi dem di jàng foofu maa ci la nga xam ne yadurruhum dina leen lor fil axirati ci laaxira te wala ci bés penc te wala yanfauhum te du leen jëriñ huwa sihru loolu mooy njibar njibar moom ku ko jàng yaa ngi jàng lu looy lor yaa ngi jàng lu looy gàllankoor bés penc waaye du la jëriñ fi dara ndax wala yuflihu saahiru xaysu ata yàlla neen njibaar fu mu ñëw du texe fu mu mënti ñëw nag dëkk bu mu mënti ñëw alam bu mu mënti ñëw du texe du siiw daal yàlla ne wala kàdd alimu xam nañu ñoom yahud lamin staraahu ki nga xam ne tànn na dëng bikitaabillahi téere yàlla maa lahu jël na caaxaan watti ko téereb yàlla ñoom xam nañ ko képp koo xam ne watti na aaya alquran ngir koom-koom àddina nga watti ko changé ko ngir li ci am yàlla neen ñooñu maa ñeel leen fil aaxira ci laax min xalaaqin ci cër képp koo danga jàng ba pare ndax bëgg alal adina wala bëgg daraja moo tax nga changer ay alquran yi watti ko ba am ndax am ci dara ah yàlla nee na amoo fali fale alaxira amoo fa cër yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla musal ci watti aay yo xam ne wàcceewul noonu di changer ni ko bëggee wala bis bon na mastaraw li nga xam ne jënd nañ ko wala jaay nañ ko bii ci moom am fu sahum seen loo jël sa bakkan jaaye ko ko jaay ci ci loo xam ne du njub jaay nga lu jarul jaaye nga ko lu jarul waaw ñooñu maa lahum fil axirati min xalaaqin law kaanu aka neexoon ñu nekk yaalamuun di xam walaw annahum su doon ñoom yahud yi aamanu gëm nañu bi nabi sallallahu alayhi wal quraan ñu gëm al quraan wattaqaw ñu daal di teet ñu ragal iqaabillaahi mbugalum yàlla la masuubatan wallaahi euh, tiyaaba minallaahi bu tukkee ci yàlla min indillaahi bu tukkee ci yàlla xayrun moo gën li ñuy sàkku dégg law kaanu yaalamuun suñu xamoon yaa ayuha alladina aamanu ee ñi gëm yàlla laa taqulu bu leen wax linnabi sallallahu alayhi wa sallam raaina xool ñu waaw bu leen wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga saaba yi dañ doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa ina raaina raaina xool ñu raaina xool ñu duñu def lu bon du def safaan léegi yahud yi suñ ko déggee di reetaan parce que raa ina ci seen làkk mooy kan na bi kan su bi su fekkee ne arab yi arab nag loolu mooy xool ma xool ñu xool ñu ci arab waaye soo ko bëggoon tekki ci seen làkk mooy su euh, dof bi suñu dof bi léegi yahud yi di ko def dégg bi loolu amee يالا يا ايها الذين امنوا يا ني گم يالا لا تقولوا بولين وخ للنبي صلى الله عليه وسلم راينا راينا سامنيو ولا خولنيو وقولوا وخ لين انظرنا خول خولنيو موم موي عرب الفصيح موي موي عرب بو خامني بو لير soko waxe yahudi duñ am ci yoon wasma'u deglu len maa tuumaruuna bihi liñ leen di digal ngeen bàyyi wax raa ina walil kaafiriina ñeel na yéeféer yi nag azaabun mbugal alimun bu metti huwa fi naar maa yaw maa du mébét allazina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañ min ahlil kitaabi ci ñooñu téere walal musrikiina du caagéen way bokkaale yi arab yi an yu nazila ñuy wàcce aleykum ci yéen min xayrin ci ak nubuwa nubuwa min xayrin ci yiw min rabbikum tukkee seen borom ñi duñu bëgg mëg yàlla wàcce ci yéen alquran wàcce ci yéen koo xam ne yonent la duñ ko bëgg mëg wallaahu yàlla tastu mu ngi jaglee bi rahmatihi nubuwam ga man yasha ku mu soob wallaahu yàlla zul fadlil azim mooy gën borom ngéneel gu réy ga euh, wa qaalu wax nañu ñoom yéeféer yi inna muhammadan yaamuru ashaabahu alyawma bi amrin wa yanha anhu xadan muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi-léegi dafay digal saabam yi dara suba mu digal leen leneen mu tere leen leneen yàlla nag nee leen maa nan sax min aayatin aw nun siixa naati bi xayrin minha maanaan sax watti wuñu changé wuñu fëlli wuñu min ci aay aw nun siha walla ñu fàtte yéexe ko ñëw walla ñu dindi atte ba illaa lu dul naati danañ indi aw naati walla ñu indi bi xayrin ci gën li gën yiw li gën a baax minha ci aay bu ñu folli mel na aay yoo xam ne dañu leen folli dañu leen di jàngatee kenn du leen attew am na yoo xam ne dañuy attewu ci di leen jàng ci téere bi te atte ba nekk fa dañuy bàyyi xukma ak qiraatu am na boo xam ne xukma bi mooy nekk fa waaye qiraatu bu nekk fa am na boo xam ne qiraatu boo nekk ba waaye xukma bi du fa du fa nekk am na ay ci alquran yoo xam ne naasix la ak mansuux am na yoo xam ne naasix la laa mansuux am na yoo xam ne na ah, mansuux lañu ay yoo xam ne dañ koy jàng ci alquran sooy jàng ci alquran dañ koy jàng waaye su doon atte atte bi dañ ko niilal dañ ko folli da mel na ni décret boo xam ne président de la république da ko jël tey ñu bind ko ci kayit yi journal officiel suba mu jëlaat beneen décret boo xam ne bu annulé boobu mais sooy jàng liir liir li ñu bindoon dem di nga ko liiraale waaye de kenn du ko attewu parce que passé na yu mel noonu alxuraan daf ci di ci am dañuy wax naasix ak mansuux ak yoo xam ne naasixu fil fil qiraati لا لا بال لا بالحكم لا في الحكم اك في الحكم لا في القراءه يو ييب ام التي القران موتا يال ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها دوني فولي ايه ولا ني فاتلوكو يونس صلى الله عليه وسلم ولا ني ييخكو اندي لودول دنا اندي بوكا گن من علم يعلم خنا خمو ان الله يالله qadirun aji attan la ala kulli shay'in ci lépp lu munti doon alam ta'lam xanaa xama an allah yàlla lahu ñeel na ko mulku samawaati nguur asmaan yi juróom-ñaar wala ard ak suuf yi juróom-ñaar wa maa lakum ñeelu leen min duunillaahi bàyyi fi yàlla min waliyin koo xam ne moo di wattu min bi zaid la min waliyin ku leen di wattu wala nasirin du caageen koo xam de leen di dimbali boo teree leen mbugalum yàlla am wàll turiduuna da ngeen nàmm an tasalu ngeen laaj rasulakum seen yonent kama suila li ñu laajoon muusa yonent yàlla muusa bi nga xam ne ay aw nitam yi laajoon nañ ko min lu jëkk xam lu ñu waxoon dañuy waxoon arina allaha jaaratan woon ñu yàlla ñu jàkkaarloog moom yàlla ne wa man yatabaddali képp koo xam ne wàtti na al kufra kéefér bil ci ngëm faqat dalla kooku de sanku na sawa asabil yoon wu jub wa wadd mébét na kasiirun lu gën a bare min ahlil kitaab ci ñooñu téere law yarudduunakum aka neexoon ñu delloo leen min baadi imaanikum ginnaaw bi ngeen gëmee ngeen nekk kuffaaran ak way weddi xasadan ngir kiñaan rek gëm gi ngeen gëm yonent bi sallallahu alayhi ak gëm alquran min indi min indi anfusihim ci tukkee ci seen bopp min mbaadi ginaawo ma ta bayyana birna lahum ñeelen fi tawre ci tawreedu li ngeen di jàng alxaqu mooy dégg fi saani nabi salallahu alayhi wa sallam fa afu na ngeen jëllale wasfawu ngeen ngeen jéggale wala fa afu fa afu na ngeen jéggale wasfawu ngeen jëllale xata yaati allahu ba dikk bi dikkee yàlla bi amrihi ci mbiram fiihim min alqitaali ci xeex ak ñoom inna allaha yàlla ala kulli shay'in lépp lu mu mëntu doon qadirun mooy aji attan wa aqimu na ngeen saxal asalaatu julli wa aatu na ngeen joxe azakaata azaka wa maa tuqaddimu lépp loo xam ne jiital ngeen ko li anfusikum ci yiw ngeen jiitalal ko seen bopp min xayrin ci yiw tajiduhu di ngeen ko fekk di ngeen fekk tiyaaba ga indallahi fa yàlla inna allah yàlla basirun aji gis gis la bi ma taamaluun lépp loo xam ne yéen a ngi koy jëf fa yu jaasikum bihi dina leen ko fay wa qaalu wax nañu lan yadxul aljannata illa man kaana huudan aw nasaara ajjana de du fa dugg lu dul koo xam ne yahuud la aw na wala nasaara nee nañu ajjana daal du fa dugg lu dul koo xam ne juif la wala chrétien la loolu la ñu wax Mm-hmm. yàlla ne tilk loolu amaani yihum mooy seen mébét waaye du demee noonu de xul waxal nee leen bi yow Muhammad sallallahu alayhi tontu leen wax leen ne haatu indi leen burxaanukum seen lay fii in kuntum ndeem nekk ngeen saadiqiina di woy dëggu ci li ngeen wax du dugg àjjana lu dul koo xam ne juif la wala chrétien la indi leen ma lay indi leen ma lay bale aha kay yadxulul jannata xayruhum ku dul ñoom dina dugg al aljann man ki nga xam ne aslama jébbal na xar kanam lillaahi ñeel yàlla te wa moom bi mu jébbal kanam lillaahi ñeel yàlla wa huwa moom muxsinun aji rafetal jëf la dafa wéetal borom bi subhaanahu kon fa lahu ñeel na ko ajuruhu payam inda rabbihi foofu boromam wala xawfun déet ragal alihim ci ñoom ولا هم ديت نيوم يحزنون نيو جاق في الآخرة تي بس لنج وقالت اليهود يهود ينين ليست النصارى على شيء على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود ينين نصارى يي نكون تدار نصارى يي وخنا يهودي نكون تدار waxum ñoom ñépp ñaari kuréel yépp yatuluuna ñu ngi jàng alkitaaba téere bu dee chrétien yi ñoom ñu ngi jàng bible mooy injil bu dee yahudi yi ñu ngi jàng tawréet mooy toora fan la dégg nag ñu ne benn waay dafa bëggoon tuub mu dem ci juif yi laaj leen diine yépp ban diine moo ci gën ñu ne juif di di di diine yahud mu ne ma ban moo ci topp mu ne islaam mu bàyyi leen foofu demaat ci chrétiens yi ne leen diine yépp ban moo ci gën ñu ne diine yahud diine diine chrétien moo moo ci gën ñu ne ban moo ci topp ñu ne lislaam mu ne ah, kon d'accord léegi yahud yi bu mu leen laaje seen bopp lañu jiital soog ci teg lislaam bi ma demee ci chrétiens yi seen bopp la ñu jiital ñu soog ci teg lislaam kon lislaam boobu kenn ku nekk deuxième mu ne ko kon moo gën bàyyi ma dugg ci lislaam waaw hmm? kazalika naka noonu qaala la waxee alladina gaa yi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñ mooy mushrik al arab yi la qawlihim kem seen wax li nuroog waxu yahudi ak nasaaraay dégg nga fallaahu yàlla kum mooy aji atte baynahum seen diggante yowmal qiyaamati bés pénc fii ma ci li nga xam ne kaanu nekkoon nañu fii yaxlifuuna yaxtalifuuna di wuute su ko defee ñu teg ci suñu baaraan ba suba incha allah yàlla na yàlla def ci ñu dégg ak topp lépp lu ñu ci yàq yàlla nañ ko yàlla jéggal lu ci baax yàlla la yàlla nañu yàlla def ci defal ñu tawfiq ak taysiir bi jaay saydi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu